dama lay wax benn affaire. Hmm. xam nga Macky Sall balaa muy dem dafa dafa signé benn fa am décret bu mu def. Hmm. mu changé euh, je pense que c'est Cour suprême. Hmm. Jean Jean-Louis Paul Toupane. moo nekkoon je pense que moo nekkoon procureur général non non avocat général. bokkoon na ci de la Cour suprême léegi moom Jean Paul boobu. moo mag. kii juge boobu xamutul encore lan jaay mhm. kii ñu ki Macky Sall nommé woon. Mhm. Jean Paul moo ko mag alors que loi bi daf ne c'est le plus âgé léegi mhm. mag yi dafa nommé koo xamante moo ko gën a jege bu bàyyi ki nga xam ne moom la yoon wax ne kii lay nommé donc loolu président bu mu ñëwee. dafa dafa suspendre dossier boobu dafa suspendre dafa annuler décret boobu noonu. et après démb ci nomination yi dafa corriger loolu donc bu def ki ñu tuddee Jean Paul. teg ko ci bopp bi donc corriger ça c'est une injustice. li ko def. Mhm. tegoo ko benn yoon daf laa sonal fii rek. Mhm. mu nga bëgg dara mu bañ. mu am koo xamante ni bokk yéen ak moom yéen a bokk. Mhm. muy joteeg moom ñuy xuloo ma ma jàmbal jaañ parce que réalité bi loolu la. bu ma jàmbal jaan bi fa la juddoo. parce que dañ koo sonal. moom mu ne duma def loolu du ma def loolu ma jàmbal dugg si naam pourtant mi ngi jaay ne moom dafa intégré waaye moom dafay traîner les casseroles. ñu porte ko léegi chaque jour est-ce que xam nga daan boobu génnagul. léegi moom ñu ñu ñu def ko sa appel. am na nu ñu koy tuddee ci langage administration xaw ma disponibilité bon bu dee militaire réserve la. koy tuddee disponibilité. donc ñu def ko ci loolu mooy que ne heure bu ñu la soxlaa. mën na la woo ministère mën na la woo tribunal. salaire salaire day dagg. non waaw waaw waaw léegi loolu. léegi boo ko defee nit. waaw léegi boo ko defee nit sëriñ bi loolu. mooy mooy même bu la waxul ne lii neexu ma xam nga ni neexu ko kii bu muy dem jàngi fac droit bàyyi fi médecine bàyyi fi agronomie xaw ma bàyyi fi littérature mu ne man droit lay def parce que en réalité ñuy def droit ñu leen ñu leen ñu leen du dugal ci droit en réalité ñu koy mhm. def dañuy doon nit ñoo xamante ni dañuy bañ injustice mhm. ñu ne man de lii ci xew ci àdduna bi bëgg naa su ma nekkee magistrat ba ma nekk avocat. Mhm. damay défendre nit yi. moo tax maître Moussa Sarr man euh, c'est l'une des rares fois may tudd nit ci émission. Mhm. mais comme genre ku mel noonu tey boo ko woowoon tout de suite. Mhm. nga ne ko damaa am dossier. yàlla xam ne bu la défendre sax dina la booleeg ay au moins ñaari avocat yoo xamante ni soo ko naree fay honoraire munoo déedéet ma ko jël. maître Moussa Sarr parce que dama ko xam. donc kooku mu lay défendre te yàlla tax. parce que xamul la mu ne léegi danaa la booleek diw avocat ba pare avocat yi ñoo lay woo. naa la si la maître Sarr moo ma booleeg yow. léegi nii ak nii léegi dossier bi lan la ngeen tasee def réunion nga wax leen lan mooy problème bi ñu jël ko di la défendre comme si yaa leen fay ay millions. parce que ñooñu danoo bañ injustice. léegi ñooñu nag bu ñu demee jàngi. ñu jàng kii doon magistrat kii doon kii doon euh, avocat hmm. mais ngalawaay yow tamit nga nekk ministre yow politique moo tax ñu namee la hmm. mais bàyyi la ñuy def seen liggéey léegi ni def muy def liggéeyam arrangé nguur régime bi nga ne waa puisque da nga maa da may xeex léegi ñun xaaral ñu sànni la ci àll bi hmm. en réalité c'est comme ça donc loolu je dis bien euh, l'erreur bon c'est pas une erreur c'est des fautes yu nu defoon régime bi et je pense que régime actuel bi aussi bokk na li war a tax li gën a li ñu war a mën a gën a éviter mhm. mooy jël ay nit di leen sanctionner parce que ñun ak ñoom bokkuñu position parce que quand même du fi jaar euh, c'est terrible non waaw vraiment doy na war trop alors moo yow aussi ci euh, réintégration kii di juge ko aussi ana mhm. ban jàng si def oui comme ni ma mhm. réew Euh, nit am na taxawaay boo xam ne boo ko fa amee. Mhm. Euh, soo bëggee def euh, promotion wu valeur wala vertu da nga koy jaarale si nit ñooñu. Mhm. moo tax ma lim sànq ku mel ni Sabasy Faye lim ku mel ni le juge Racine Thion. Mhm. lim ku mel ni l' actuel l' actuel procureur général l' actuel ministre de la justice. lim l' actuel procureur de la république. c'est des gens yoo xam ne ci seen liggéey dañ cee wone seen euh, njàmbaar ak seen intégrité et je pense que su fekkee ne réew euh, da nga bëgg mbir yi jaar yoon da ngay fexe ba nit ñu mel noonu nga xam ne tout le temps dañuy def promotion wu euh, intégrité ak li nga xam ne moom moo di valeur da ngeen war di gën di yëkkati di leen montrer en exemple parce que gëm naa ne bu fekkoon ne comme ni ma ko waxee sànq ñii fi nekk dañoo bëgg rek su ma bëggee ngeen tëjal ma diw ngeen tëjal ma ko. Mhm. su procès amee nii lañ ko bëggee ngeen defee ñu ko noonu. Mhm. non gënoon na yomb nga bàyyi ñi nga xam ne professionnel gi ma wax sànq ci mbir mi. Mhm. des gens yoo xam ne leer na la ne mais yow le procureur bi ñu fi jógee jëlee Abdou Karim nga yaakaar ne bu ko fi le président Bassirou Diomaye Faye ak euh, conseil supérieur de la magistrature bàyyi woon. nga yaakaar ne kooku du toog ku tudd gis nga euh, nu mu tudd Ahmed Bah Diakhaté. Mhm. dama gëm ne c'est des victimes de Abdou Abdou Karim Diop ah. te boo leen fi bu bu ñu fi bàyyi woon Abdou Karim Diop. Mhm. ku yëngu mu tëj la. Mhm. parce que il essaiera de de séduire le le premier ministre ak le président de la république. ci ay doxalinam mais lu yëngu ci réew mi mu mu mu lijjanti ko. et même lu jëm si euh, mbirub euh, mbirub mbirub rapport yi nga xam ne le procureur moom moo war a autosaisir sur certaines choses. gëm naa ne. am na blocus boo xam ne xëy na du jóge ci moom parce que moom dina xam ne kat man mi maa ngi fi nii waaye xam naa ne euh, yàggul dara gars yi dem euh, conseil supérieur de la magistrature moo tere ñu jëlee ma fi mhm. donc Euh, le juge Téliko déjà mbiram nekk na loo xamante ne nii c'est quelqu'un de très intègre mhm. même si ma jambal Diagne dégg nañ tuuma yi nga xamante ne teg na ko ci kawam mhm. wax ne euh, ci mbirub Hissène euh, Habré daf si doon jot ay xawma commission wax yu demee noonu ba mhm. daanaka ba mu ma Madiambal Diagne ci kanamu yoon dañoo tegoon defe naa benn sanction bu six mois dont trois mois ferme contre jambal Diagne te loolu yàgg na gannaaw loolu loolu loolu première instance lañ ko tegoon boobu ba léegi kenn maanaam kenn mënut a euh, yéggali procès bi ba ba ba sanction bi ci war ñu teg ko ci kaw ki nga xam ne moom moo di ma Madiambal Diagne. Mhm. donc xam naa sujet si kanam ci moom la ñu war a ñëw. mais gëm naa ne c'est des gens yoo xamante ne wane nañu seen ay preuve ci ci ci wàllub justice. Mhm. kenn mësu leen a dégg ci lu ñàkk fayda kenn mësu leen a gis ci lu ñàkk fayda ba ñu am mhm. une réputation gis nga da nga doon toog ñu toog benn bis rek. ngi ne ñu Ousmane Sonko l'affaire dañ ko war a juger fële ci tribunal bu Ziguinchor. ci saa rek nga commencé dégg eh, saba si non vraiment c' est boo xam ne moom moom bokkul si gars yi c' est de très intègre mm-hmm. ndax jaar-jaaram fii ne nekkoon na je pense ici à Dakar mm-hmm. l' affaire Abdoul Abdoul Abdoul Abdoul Mbaye jaaroon na si loxoom ak yeneen dossiers yoo xam ne jaar na si loxoom mm-hmm. mu am jàmbarte gum ci wane mooy nguur day taxaw ne man lii laa bëgg jël ma diw nga ne ko du ma ko def xam nga loolu nekkul ñëpp ko mun bu doon ñii ñu sànni Tamba nii mais du demee noonu. Mhm. xoolal l' actuel procureur même parcours boobu defe naa si la jaar. Mhm. la euh, le ministre de la justice Ousmane Diagne autant mais même situation boobu ci la nekkoon donc je pense que des gens comme ça. soo leen jëlee teg leen kat c' des gens yoo xam ne ils sont pas là pour faire plaisir à Bassirou Diomaye Faye. Mhm. ils sont pas pour faire plaisir à Ousmane Sonko wala ci gouvernement am. Mhm. li leen ñor mooy li nga xam ne moom moo di yoon ñu appliquer ko. et je mhm. pense que loolu aussi c' est très important. donc des gens comme le juge Téliko euh, ku mel ni Sabassi Faye ku mel ni le ak ñeneen ak ñeneen bëri nañu ah être ñii la ñu xam. ñi mhm. ñoo fës ñi ñoo nekk ci yenn dossiers yu siiw ba nit ñi xam leen. mais barina na des gens yoo xam ne euh, c' est des gens intègres des mhm. jeunes yoo xam ne seen liggéey ñu ngi koy def correctement malheureusement ñoom ñëpp dañ leen jëloon sànni leen fële. Mhm. parce que gouvernement bi fi nekkoon président bi fi nekkoon lenn la soxla. mooy waajoo xamante ne nii man soxlaa ma ko jub soxlaa ma kuy àtte dëgg. soxlaa ma ko maîtriser ay textes xam na laa soxla. koo xam ne ndigal jëfe ni ma la ko sante noonu nga ma koy defalee dama laa ñëw jox la Ousmane Sonko ne la sëñ bi la waxloo ma la droit lenn laa la sant mooy usman Sonko mii fexeel ba sur l'affaire euh, Mame Mbaye Niang Ousmane Sonko mbirum diffamation bi. Mhm. tegalal ma ko condamnation bañ ko tegoon yokkal ma si loo xamante ne dina ko tere nekk candidat lii laa la sant waxloo ma la droit. Mhm. donc des gens comme ça moo tax ma ne la différence bi dafa dafa dafa ëpp sax mooy dañoo jóge si nitu valeur amu fi place doxal yoon amu fi kuy xool texte amu fi place lenn lañ soxla mooy koo xamante ne li bëgg dañ ñu koy defal ni ñu ko bëggee. Mhm. léegi nga jóge si jamono boo xamante ne nii nguur gi dafa doon wax ne man euh, soxlaw ma ku naan man nitu valeur laa wala koo xam ne dañ naan la attel ñu luy defal ñu luy nga ne du ma ko def mm-hmm. mais li ñu soxla mooy nit ñu nga defal ñu condamnation yi ni ñu ko soxlaa ak ni ñu ko bëggee mm-hmm. nga jóge si loolu dal si un gouvernement boo xamante ne dafa dem xool ñi gën a dëgër bopp des gens yoo xam ne leer na leen ne mënoo leen manipuler nga jël leen teg mm-hmm. jël nit ñu mën a manipuler sànni je pense que loolu leçon la aussi boo xam ne war nañ ko ci jàngat. mais des gens comme Téliko Sabassi et tant d'autres ñi ma xamul seen i tur. Mhm. yaakaar naa ne c'est des gens yoo xam ne nañ leen gën a promouvoir. Mhm. teg ñi nga xam ne ñoom ñoo dëggu teg ñi nga xam ne ñoom ñoo am intégrité. Mhm. et comme ni ma ko waxee sànq ñu jéem a dem vers des poursuites judiciaires contre ces gens yi nga xam ne nii li Sénégalais yi dund ci jamono boobu noonu sur l'affaire Adji Sarr. Euh, sos gi ñu ci kaw Ousmane Sonko ci mbiru condamnation bi ñu ko teg ba nekkul candidat ak yeneen ak yeneen. ñu lijjanti ko ba bu jëree ay ñu teg ko seen kaw. exactement alors Thioune euh, dañu daal di waxtaanee si li nga xam ne nag moo di euh, pôle. Euh,